plaidoyer bi mooy dañuy lancer un appel à son excellence président Macky Sall mu gën a le département de Kër parce que tey moom moo le département de Kër donc tey Kër a besoin des infrastructures sportives pour pour pour vraiment pour que les jeunes puissent s'épanouir euh, au niveau de ce département là donc Malika rek moo am benn stade et c'est insuffisant donc ñu ngi koy ñaan également mu renforcer le le département mais également avec le il national. donc ñi war a ñëw également ñu ngi leen di ñaan en tout cas à ce que ñu bàyyi xel le département de Kër Massar mais également ñu bàyyi xel la commune de Malika. donc Jaxaay am na benn genre bu mel boo xamante ne tey euh, c' est un je pense que c' est c' est dans le cadre privé la la foofu noonu. mais la seule infrastructure publique aujourd'hui dans le département de Kër c'est le stade de Malika donc on attend le stade du département de Kër un stade ñuy ñuy ñuy lancer un appel aux autorités ñu bàyyi xel département comme ça départ ak commune de Malika pour ñu infrastructure au bénéfice de la